dog dog lu bii sowal moon bu fimlam mbaa moon moon moon mbinjol la moon bin alhamdu attaquant la combat bi yàgg bu bu yàggee rek adversaire am moo ko yàggal ñu Mbinjool takk na moon moon ban ña moon ban ña de moon ngemboo ngembu lu ñuul Mbinjool ngembu weex wal leen gannaaw diggante fim la wala bin alxamdu ak sowal la Fadiane lay xewe 26 mbin njool moon takk na ko mboot wala lan lay doon woor na wala lan la wecc waay waay buki ay buki jay buki Bukiyo Mbinjool jomina de la ilaha illallah Karim jàll na foofu ba desoor bi